بالخروج ما إلى الباب هانم وألنا على المصطفى خير بايا مبادل ربي تعالى زرت هذا مغادبا لمن فضله بعده mbokk julli fi teew yëpp nee na ñu kenn ku si turam suñu sant ñu kaddu gi di ko ki turu suñu Aliou waaw dana dis loolu te ñu taxaw wax fii dara waaye bala ñoo tàmbali waxtaan rek ñun ñëpp ñu teewlu kenn koo jàng Faatiha jàng fukki Ixlaas ak benn juróom-ñaari innaa anzalnaahu salaatu ala nabi bu man ñu haddiyaar ko suñu maam moo dee xamee bu la jël barke barab bii te taxaw taxaw ma sëkk boo nga xam ne am na lu lu bare bare ndigal ndigal ndigal rek moo moo moo moo mënti fii amu fi kàddu daanaka julli ji xamu na ko jullee ndax dafa ngeen dafa transition kanam kon ñëpp teew def ko noppi ñu doon àgg li wax suñu tubaab Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moom jiwri seen xarit yàlla fi yàlla yàggal te wéral ko daa doon mérité di am ko moom ñu ñuy nga xam ne moom jiwri Cheikh Mamadou Fadal te mbokk yu baax yi nekkal ko fi kàddu gi ñuy wax sëñ Sëriñ ma ko moom ko war a wax boppam ndax man mooy sama kilifa si àll bi kilifa yoon wi noonu doxee xaj na amul bu ñu nee ndigal bu xas jot boo mën defal boo mënul defal waaye xanaa may ñaan rek ñu jub rek ñu xam ne ñu mën suñu borom ak seen ñu mën ñoom waaye lu jëng ñu xam ne maa mëntu wax ak fi mu li nekk ci man tey jii nga xam ne maa ko teewul fi ne te na ngeen si daal suñu kilifa bu baax boobu nekkoon ñun fii ci waxtu yi doon def li ñu def tey jii te ñun ñi xamuñ ku ci doon ëllëg si biir muy mbir mu doy waar moom mu doy waar waaye ab jub danañ loolu yàlla ndax ñu ji ñu gën ñëpp dem nañ boo xoolee alayhi salaatu wasalaam Seexuna Xaadim te Amadou Fall bokkam yëpp ak ñi baax yëpp jiitu nañ kon barab ba def na mooy barab ba gën ci àdduna moom ma gën ba gën ba gën ndax jëf lañ jëf pour bi di leen ndokkee bis bu bi nga xam ne bisu mbégte la waaye bisu fàttaliku yàlla la ak bisu tuub ak delloo suñu borom subhanahu wa taala ndax yàlla jox nañu ndigal ñu joxe ko suñ kër bi lay kàttan kon nag nangu ko yàlla ko moom subhaanahu wa taala moo ko moom yàlla na ma jëf yëpp taxaw yi taxaw guddi yeeg naa fi ne yeeg koor yi biti yeeg lere yi yëpp yàlla na suba ko suñu kër yëpp te fàttali bis yi nga xam ne bu de gën a jege rek daaw wéyal na ñëw du ñëwati mukk bis tey bii di doon ñëwaat mukk kon nag ñu màng ki loo xam ne ëllëg si bi ndax fa jëm daal dafa doy kon nag ku yàlla may nga dund weer mbégte la naam ci ndonk ndaay wala ñi nga xam ne daal. jëf di ko bëccëg daa daawuñ ko def waaye bu fekkee ne ñu ngi koy def tey ngir bëgg waaye war nañu tiit xam ne bis man manque am ndax bis bu ñëw dootu ñëwati weer bu ñëw dootu at bu ñëw dootu ñëwati saa su ñëw dootu wéeti kon kenn ku ci a koy boppam sarse ko duñ ko loo xam ne dem yóbbaale ko ndax dund lu gàtt la li mu gàtt gàtt ak mën a gën a gàtt ak man man li mu teel teel ñëw jëlaat ndax yàlla dafay bind ci amul fay dangay juddoo gën a àdduna mënu ko dara ci sa tur diggante bu gàtt ngay mën ñu ñu demada ba nga di diggante bu gàtt ngay mën a gis néew da nga dem ba du ko mën sax boo bu yàggee tuuti rek du ko mën dañuy dimbale kon nag loolu di xam ne diggante bu gàtt nga ko def nag bu dee juróom benn fukki at lay doon wala juróom-ñaar fukki at wala téeméer at sax du doon loolu daanaka juróom-ñaar at njëkk yi doo mën sa bopp dara fukki at yi juróom-ñaar fukki at bu jëm fa leer nga cee mën a gis néew da ngeen fukk boo dem ak juróom benn fukki at mag a dugg na ci yow kon loolu bis boobu ñu ko bàyyi xos sëñ bi wax ne naa lay jot li ay ngërëm ak cantam ci sunu doom ji baax ji mu sëñ Moussa ñaa moo taxaw barab bii bi ma jëloon jiw ba nga na kay li ci jooy mooy jàkk jëm si Mamour lépp doon taxaw mi ko taxawee duñu daan dox diggante ba ay kilifa mi ngi lépp lu xam bàyyi nekkoon na fi daan taxaw di ko doxal diggante ba ñu bokkal sëñ Fall yi bokk seen xol yi ak bokk yoonu yëpp moo ngi ci yoon woowee ñu ko ñaan ñëpp yàlla yàlla ko ñaanal sa borom yàggal ko fi te mee ko wér moo ay rakkam ñëpp ak si sëñ Mamour yëpp ñoom la ñàkk ñun ñoo ñàkk ñun ñoo ñàkk loo xam ne mënuñ ko am ci àdduna kon suñu musuwaa ñu ngi la ñaan nga góorgóor bu baax a baax di sant bokk yi taali bi yëpp suñu bokki bopp yi xam ñoo bokk ñoom Seex Xadim rawatina suñu wàkk maam si affaire yi nga xam ñoom am nañ jullikaay am fépp waaye si lépp ñu si nga ne ñu ko daan waxee rek am ñu jot ñoom ñu am nañ kenn ko ne ci ñoom am nga sa dëkk boo xam ne si caada maam la dëkk bi tim sedd na fi seen boo xam ne mën nañ ko def seen pénc waaye lépp ngir bëgg lu baax ak coloré moo tax ñu bàyyi ko euh, te suñu mbokk biso yi nga xam ñoom suñu leen wax suñu bopp la ñu wax ndax ñooy ñoom ñooy ñoom kenn rek ñu boole te ñu boole ba amatul kenn ci am bëkki dem dem nañu euh, kenn ñu boole bu dee wax si affaire biso bu dee wax si Ibrahima wax si om kenn ñu boole ñooy amati ñeen kon ñooy bàyyi seen lépp ñoo teef yi xam ne ñooy ñooy ñooy ñoom ñu ñoom seex si tim foofu seex maa seexee te xam ne ci keppar suñu toile ci biir sa sa ndab loolu yi ñu ñu am ñu barab yoo xam ne ñëpp am ñu fi bàyyi ko ñëw fekk ci ci ci liggéey bii kon loolu maa ngi lay sant bi suñ suñ sëriñ mu sant lañ tout bi nga xam ne mooy kilifa ba tey di ñaanal yàlla yàlla bi yàlla yàlla bu jaamu yàlla li nga fi tàmm xamee ko ba ñëw di ko si te mooy mooy ngërëmal subhanahu wa taala yàggal Seex ci ci barke yàlla ñëpp yàlla jot kenn ku nekk tànk nga dikkee te yi nga demee yàlla sa borom tànk njëggal tànk wér tànk xéwal ak tànk jaamu yàlla bi nangu fépp suuf lu ñu fi rek yàlla xam ni toll fépp suuf foofu yàlla na ko yàlla jël ci kat noonu nga xam ne lu ko soob lu ko soob lay def subhaana mu def ko ay ay njëggal def ko ay yërmande def ko ay xéewal te dimbali ñu bañ mën ko topp te topp ko ne jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi xidma ak ibaada daa bokkul ibaada xidma ak mooy mooy jëf ci di yox tarawaay yënguti di jëf say say say say say jënd jaay ak bay ak yooyu mooy amal waaye xidma nag moo ko ibaadatu yi bokk ba tey mooy julli juróom weer weeru koor nag asaka yi nga xam mooy arkaanu islam ak xawaay islam yëpp nga def ko waaye nag xib na na ko jaamu yàlla jaamu yàlla te mooy dimbali nit ñi gis nañ màggal gi koor ñu bari wax yàlla nañ ñu am lépp ko jox ci yàlla tax foo ramb ñu nee tàngal café café nga bu ay ay mbuusi béyee ak ay mburu lépp ngir lan ñu bëgg am ngërëmal yàlla rek ci ci ci yëf yi ndax dañoo wax ne ku dox benn tànn ba rek ko jox ku waroon ak pay yàlla rek ko xam kon yëf yi ñu ci defal mu néew bari lépp yàlla na ko suñu borom fayal boppam te yàlla na mu toll lay fayee ndax la asul amsaane xasu yàlla rek kenn ku mu fay boppam bàyyi suñu kilifa yi te may waxaat sama bopp di waxaat a yaraat jabar gi gën leen nàmbatal jàngal lislaam jàngal leen lislaam bi muy yëpp ndax léeg yoo xam ne fa dem wato koñ bee gis ay gone yu ndaw yoo xam ne nit ñi naafila ak yu mel ne ay yoon dàqee yooyu yëpp lu ci gone ci kilifa yi gone yi rek la ndax gone bu fekkee tànn ko rek def lu lu kii ndax moo moo neex moo béy ñëw boo boo boo tënk mu mu tënk mu tënk ko da dem bu nappee ci loolu wéyee may dégg sama bopp di leen dégg ñu wax ñu wattu weerante weerante weddante weddante weerante rek fii yëpp ko def bu ci xeet jumtukaay yi xam ne tasaare xibaar yi lu la nga ci dégg nit ñoo xam ne daan kenn xam fu nekk di wax wax yoo xam ne daan ko wax jë jën dégg ndax ku demut moom ku ku ku ku wax bu wax ay waxam nga di ko déglu yéen yem ndax taxaw nga gisoo doo doxatoo kon nañu tax gumbaluwoo ndax ci wàllu jot yàlla yu ko saa su ma ko ñu bàyyi tonnante bàyyi waxante ju ju ju du noor loolu lu tax am murid daal am murid moom day day mel ëkk rek tax gumbaluwoo te nu jëm ci yàlla képp bañ a jëm yow jëm ci fenn noonu xutba bi bu ñu ko seetlaale rek ñu ko jàngatee rek lépp suñu toit wax na ko ci dafa mel ne dafa mel ne àdduna ak àllaaxira la ci boole tënk ko ci. koo jàngat seetlu ko ni nga ko waxee lépp rek xam ne àdduna alaxira mi ngi ci bu ñu ko toppee liñ bëgg dañ ko am fi ak fi ñu jëm euh, kon maa ngi guddal te te te jéggalu ndax waxtu bi naaj bi tàng na euh, soxla yi bari na waaye ñu gën a góorgóorluwaat rek te gën a xam li ñu fi indi ak li ñu fi bàyyi dëkk bi tiir tax ñu ñëpp ñu bàyyi ko suñu denc a yi ñu fekk si borom barab bi te mooy jaamu yàlla moo moo moom la fi ñëw ñëw foon ngir ne naa xool dëkk boo xam ne dafa neex a béyee ndax fi gën a xam nangul may daal naa naa xool dëkk bu neex commerce na amu ko boo xoolee ci mag koor gi rek damay xool ne boo demee soow wala nga dem ay mel ndar sedd bu fa nekk kenn su ko gis tàggoor ñëw fii kenn musu ko gis fii fii ay 25 26 nga xam ne ne waaye yàlla moom loolu moo sob moo sob bi daa fekk fi gën tàng ci àdduna ci ci astuwaay réew bi mu ñëw sañ si fi gën ñàkk ndox ndox mu naqaree fi am sori na tàng na wen na beran lépp mu ñëw waaye daa bàyyi lépp ñëpp ngir ñu wér fi yàlla subhanahu wa taala ba yàlla mi nga xam ne moom boo ko nekkalee tamit dëgg ci yow bis bu la wuysee ñëpp xam ne wuysi na loolu mooy mooy mbirum sëñ Tuubaa ñëpp xam ne wuysi na wuysi wuysi na sëñ Tuubaa fii waaye nag wóotu nañ bàyyi xel la tax mu wootee ko bu noppee loolu so ñu sant waa waa waa daari kaane bi mu yooyu ñu taxaw taxaw wér waa raw duna yaax ñu liggéey liggéey wér ci sëñ ci ci ci ci ci xam-xam duru si ramadan yi boo ma ko déggee ñëpp na ci jëriñ ku amatu xam xamutoon daal sax boo ko déglu rek war nga mën a xam daal ndax ci euh, lam ñu war fañ ko wax ñëpp mën ko dégg ñoo ñeneen sant baax dina gërëm ci seen taxaw bi nga xam taxaw nañ ko ci liggéey Sëriñ Tuubaa bu loolu wooyee kuréel bi nga xam ne ceen nekk te kuréel murid yëpp bokk murid yi muy muy Tuubaa ci ngi sant yàlla di sant Sëriñ Tuubaa waaye di sant murid yëpp waaye di sant Sëriñ Tuubaa ndax dafa mel ne kuréelu social la su su su kuréelu dimbalante la yoon yi kenn ku nekk fa nga nekk war ngaa mën liggéey yàlla bu ñuy taxaw ci xam-xam bi ñu taxaw ci dimbali nit ñi ñuy taxaw ci def leen ñuy def kenn ku ne defee dara rek la mën de lépp daal bu nekk benn kon fu waay nekk da nga góorgóorluwaat te xam ne li def ñëpp ñoo ko moom Sëriñ Tuubaa dafa terewal ñu tàllal loxo kenn ku subhaanahu wa taala yi di ma wax ni kër yi ñu naan sama ñoom daal di daal di yi ñu suwet yi katatu fi baari yi ila nasaara abid yi ak tiin lépp bind na ko gis loo kon amul lu tànn kenn jox ko wa taala ne lépp loo mën a lu ma ñaq mën a may du ko ñaan sama borom doo ko wuti kon damaa def fa loolu nekk dafa war a góorgóorlu te xam ne àdduna da yonent bi sax bu bëggee dëkk day mooy dàggal boppam kon a day kër kër yi te boo kër ndax yàlla bi wàcc aadama yi kat dara rek fóon ay bant fi nekk ay ndox ak suuf mu wàcc aadama aadama kër yi ba defal la fa def ñi di kër kenn doon def la dama dama def ba taxaw fa kon doomu aadama boobu jaamu si tawakkul ak tawakkul daa bokkul nag tawakkul nag da ngay ba wàkkilu ci yàlla waaye tawakkul a yekkaar rek ne yàlla baax na lu bari mu di jàng wax naan toog muy dox toog muy dox moom amu fenn ci àdduna wala waruñu koo bàyyi xaalis sax tax muy dox amul kuñ kuñ ba nga toog ba tax nga am xéewal ga tax ngay dox ka nga xam ne moo tax nga am ko lam dajal ngay xam yow lam dajal ngay xam te moom lam dajal mooy dajal lépp jox ko yàlla suñ tuwaan ko yàlla jaral da ko jënd ko yàlla bind moo tax yàlla def ko jënd kenn kon kuñ ne moom kuñ sama sëñ ba sama sëñ ba jëriñ sama sëñ suñ tuwaan amul morom yow fexe ba amul ba jàkk morom yow ñu xam yow day taari bi ci kaw ku la ci xam taari bi suñ tuwaan ci sa ci xam sa sa sa sa ni nga melokaan sa melokaan ci ci saa yi sëñ Ba ci bàtti kenn dem fenn ci kenn dem di ñu yem suñu toit ci yow jaana ko ci yow ci doyadi koo doyadi wala ñàkk fu la ko ñàkk fu la wala sàgg na sa diine wala sàgg na sa sa loolu ñu murid bu ne war na ko daw te bàyyi xel kon naa ne soo xool sori rek ndax lii soo saa may wax bi yàgg day mel ne sëñ bi daal soo kanam te wóor ma du ko fekk loolu rek moom moo xaw a jàpp ba li ma ci war a yéene wax ko kon naa sam nañ góor ñi sam jigéen ñi sant mag ñi sant ndaw ñi sant kilifa yi teew yépp kenn ku nekk seen gis sa taxawaay ci liggéey bi ngeen def ak mat lu ko liggéey def daanaka daa mel sax ni mu feese tey ji daaw feese kon nag wëllëre am na ñëpp bàyyi ngeen si xel seen maam nga xam ne jëm jëf jëm waaye jëfandu fi jëm mukk ci àdduna te ñaata nit la jàng alxuraan ñaata nit ko jooy waaye xam-xam moo ko jooy waaye eh, ak mbokk jooy na ko waaye ngor jooy na ko ak taalibi jooy na ko nekk ci tom boo jël man nga caa xool ne suñu maam moo defee ci la mën lépp la mën lépp def la moom sàmm ci dundam kon yàlla na ko yàlla fay foofu nekk te ñu bàyyi yàlla bàyyi teg loxo ci seen kaw te ñu fi dese ñun yàlla bàyyi leen fi ba kenn ku nekk fa mu fa mu newoon boo fa mën a àgg àgg wala boo bëgg nga wees ko rek yàlla yàlla mën lépp ndax yàlla jeexul dara suñu ñu ngi jégalu kàddu yi lu jub seen mbaax képp la waaye lu jëm ñun ñoo manqué a doy bi waaye li bëgg na wax wees na loolu xëy na sama xel gàtt la sama ñàkk ma tëre wax waaye da yére jër xëtu ñaawut xatu ñaaw waaw kon nag so xol sedd guy sëriñ bi sedd nañu kilifa yëpp kenn ku nekk seen seen taxawaay ñi ngeen defal yàlla rek moom la moom la gor la mbokkum taali bi def moom la ab def nit ki bàyyi koo fi ngeen gën a wut fetli kolori jàpp ngeen jàpp ngeen jàpp ko téye ko loolu si bisla sant nañ bu a baax démb rek bu ñu jaari wax na ci bari yi nga xam ne ñoom ñoo nekk xaramam démb ceeb yooyu suñu maam moor moom ay rakkam seen kilifa bi nekk xaramam fu mu geesoo gis nekk nekk nañ wax na ma taxawaay yi nga taxaw lépp ci jumaa ci koor yi imaam yi suñu baara yow ñi nga ànd yëpp seen taxawaay wam fi nga tey fedd ngeen seen kóllëre fedd ngeen seen laxasaay ci liggéey bi te xam ne liggéey bi si maam moom ko lislaam ko dafa àndoo yéen ci da jiiti ko saa ko ci loxoom mu mu bàyyi ko fi ngeen wéyal loolee kon ñu sant ngeen sant baax dee su boo defee kenn ku ne yaa xam sa bëgg yàlla na yàlla ko bëgg ñuy baal ak ñëpp la dem baal ak te ñaan yàlla na yàlla su borom jéggal ba ñu topp dara su fu yëf yem rek yàlla yàlla nekk ñëw yàlla nekk ngërëm subhanahu wa taala ñu ngi sant baax dégg suñu ko nga ñaan